mbokku internet yi la TV di leen nuyu de di de jaajëfal bu baax ci teewlu bi te di profiter ci occasion bi di souhaiter à toutes les femmes du monde une très bonne fête tey nag ngir rendre hommage nous allons à la rencontre d'une très grande dame une battante qui am gëm te am fulla bu baax ci def députée à l'Assemblée nationale nekk aussi deuxième adjointe au maire bu belair des responsables politiques, responsable politique mbokk ak xarit yi ñu am mbegte ak contentement bu mag di dalal l'honorable député Mousty Diakhaté ànd ak moom ci waxtaan wu yaatu yaatu ci ñaari pàcc. ñoo ngi nuyu suñu mbokk internet yi di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp ci àdduna bi di am mbegte tey di jàkkaarloo ak euh, équipe Hann TV. Euh, xam naa nag Hann TV moom su ma nee Hann TV ñu bëri dina ni mais Euh, mais Mously pourquoi tey mu mu mu mu mu choisi TV waaw vraiment parce que nag yaraa xama defal lépp yaraa xama jox lépp moo tax ma choisir Hann TV Mously Jaxate nag euh, taalibe Sëriñ Bàmba la euh, sama papa tudd Abdul Baaxe Jaxate sama yaay tudd ak soxna ay Gay sama moo nekkoon représentant khalif général des Mourides ci Tamba depuis jamono Serigne Fallou ba demi ci jamono Serigne Saliou la euh yalla def nak man ma yaru ci sama yaay yaru Hann belair digenté Touba dand ak euh, Yaraax parce que Touba la jangé alcorane bima fi joggé ma dem dand def Arab, à à l'âge de 18 ans ma ñew ci sama yaay nek ak moom Guédiawaye après mu ñew keur papa Amadou gay Tamba yarah 1986 bi ñuy wax guerre 86 alors ci laa dëkk si ma, définitivement depuis booba ak léegi nag maa ngi yaraax voilà ma nekk nag jigéen ju bëgg développement ju bëgg liggéey parce que ci loolu lañ ma yar waaw man sama sama profession commerce la parce que xam nga su fekkee ni da nga am waajur woo xam ni man sama yaay amul d'ailleurs doom bu góor ñun ay jigéen rek lañu mais nag ñu ñu ay jigéen yu am jom te bëgg lu baax nekk ak suñu yaay euh, mu yor benn restaurant bu ñu wax restaurant Maam Jaara c'est en trois alors euh, bi yàlla defee man ma am borom kër Seyou Touba ci Serigne Sidi bu Serigne Abdoulahat xalif Serigne Abdoulahat bi yàlla weddee ma si aussi tooguma dama dem ci sama benn tànt dem jël fa marchandise bu ñuy wax mousseline dugg si marché Sandaga bi mu jox ma ko mille francs may jaay may jaay 1200 am 200 jox ko 1000 francs jël sama 200 restant yi ma dajale ko daal di koy leble 2000 2000 bi mu dajaloo ma xam ni leble bi day indi problème sama diggante ak samay nit te man bëgguma problème du ma nitu problème ma dajale loolu daal dem marché Castor suma démé marché Castor mu jël fa sama cantine commencé def dara alimentaire pourquoi dara alimentaire parce que sama yaay dafa res yor restaurant déjà amna client fidèle bo client fidèle bo xamanteni ni chaque jour parce que presque dana ko jaay 80000 ci ndugu alors que gis ni dara alimentaire li nga luyee boutique bi soko ko dee jaay par bis rek te nga ci guen kon xam nga dama ko calculer bu baax baax alors mais ci bir lolu ma dem ba xam ni cantine bi man na ma am lu ko gën ma dem si biir marché bi jël fa taabal di fay ci taabal ji 3000 alors que au lieu de 14000 yi ma doon fay ci cantine bi léegi 3000 laay fay ci cantine bi te li ma doon jaay moo gën a yokk fële te it li may fere wàññi na bu baax c'était juste woon la rek ni man euh, métier commerce dama ko maîtriser voilà alors euh, am na sax ndeysaan sama benn xarit moo fekk naan musif lii daal amul maanaa man ko xanaa xamoo ni maanaa kenn du ko jënd ngay dox rek ba mana dab la gis nga mana mu ne aman ko mi ngi ci dundé saw ñaq mi ngi bëgg fajj sa soxla fajj ko fofu la ne waaye mana? nekkul ci solo ak ko kuucari parce que instant bi moy wut place bobu di fa tok ci digg table ci digg marché bi yor fa sama table di jaay dara alimentaire bobu manon na ma defi lenen parce que euh, nak euh, melon na ni samay morom melon Eh, te xamone na bu baax lu ñuy def ak nuñ koy defé mais dama préféré won quand même daan sama doole ba nga xamanteni dina protéger sama bop ci yu béré béré béré béré parce que sa yo bañé liggéey te bëgg am li sa ay nawlé am rek man nga dugg ci lo wurtu dugg loolu mo waralon ma nek ci ci nonu la nekkee ba ni ma mujjé am place bu maga maga mag ci nonu la nekkee ba yalla def may dem Gambie di ñew ba yag may dem dubai di ñew alors ci loolu laa nekk ba am sama import export waaw man na xam nga arxuraan laa def njàngum nasaraan mi nag ak ma am fayda te am ci fula dama ci am fayda am ci fula euh, tu sais pourquoi parce que avant man may dugg si politique fekk na maa ngi jàng français boobu maa ngi liggéey parce que li may liggéey dafa am loo xamante ni foog ma di ko bindal sama bopp dafa laaj yeewu dafa laaj xam-xam Euh, Munulo ni da ngay tukki alors que nekk si aéroport yi di bindu lu sa tour xam nga di lu ñuy communiquer nga nan lu ñuy wax buñ lay wax sa avion sax préparé wu len porte sangam ngay duggé sax mënoo ko comprendre alors lolu motax jangu nasaran bi dama ci musa am fayda dëndu sama syllabaire di jang ba yag ma dem école kharim rasoul def sama cours du soir ci lolu la nekk ba bobu euh directeur sec MEDSEC bi nekkoon Baara Gueye mi ngi foon moo doon directeur école bi dugal ma si kii bi bu nit ñi wàccee mu di ma jàngal ci loolu laa defee sama candidat libre bu am sama certificat par candidat libre mais continuer far yàlla def nag ñu maye ma ma dem sëyi alors njàng bi munatul woon continuer parce que foog nga am doon foog nga liggéey foog nga nekk ci sa kër yooyu yëpp dafa dafa doon jouer ci ci ci lu tax avancé wu ma woon trop trop trop trop ci jàng bi mais bi yàlla defee aussi ma dugg ci politique bi dama ci defaat beneen façon boo xam ni genre autodidacte la parce que euh, du ma woon euh, munu ma woon jël kenn mu di ma di ma jàngal parce que sama temps moo moo moo moo sama temps dafa surchargé ba nga xamanteni kuma jël sax bo de ñëw defa dama lay méré parce que suma ma ci kër gi nga yegsi pour jangal ma alors damay énervé wu mujj gi mané na na na jangal sama bop rek motax dem na ci nak euh, comprendre na ko bu baax euh, jang français bi ah, man na ni man na nek limite ci ñi may seen pour ñoom musli dafa am problème parce que da ngay dékk ko naan bo jangon tuba man ko dem ko fatali dama fatali toujours ni ma jàngoo tubaab parce que man dama koy faté. pourquoi dama koy faté? parce que dama koy lire aisément et dama koy wax ni ma ko sentire loolu benn la benen bi mooy euh, dama am ay ay ay ay responsabilité de haut niveau au niveau d'Afrique et au niveau international c'est pour cela bu ma gisee sénégalais bu ma koy fàttali dama ko naan merci dama ko fàttali bés bu ne parce que ñi may liggéeyal foofu ñoom nu ma koy prononcé intéressé wu leen ñoom li leen intéressé mooy les idées idées yi musli di dégagé ak li ma leen di jariñ loolu moo leen moo leen ñor xanaa xamoon ni je suis la deuxième vice-présidente du forum Afrique population et développement on est 47 pays yuy liggéey si population développement Nous avons huit pays qui coordonnent l'Afrique. Afrique je suis la troisième personnalité bi coordonne Afrique population développement et je suis membre de la CIPD c'est pour cela des fois nous disons que nous fàttali baax ci tuuti xëy na koy wax parce que Nous j'ai un problème limite xam nga mais man problème limite waaw bi may bi may politique vraiment n'ai pas une intention politique mais doon naa nekk di créer une association de femmes parce que l'association je me dis que créer maa en 1993 avant sama taaw di judd muy association des femmes de l'ASCAT BAM bi BI, Grand Yoff xam j'étais la troisième personne que j'ai citée.

Euh, bi yàlla defee nag en quatre-vingt-dix-huit euh, Djibo Leyti Ka génn PS xam nga Djibo dafa amoon euh, dafa amoon bayre bu bu extraordinaire ci la amee woon onze députés yooyu ma ni man daal Djibo ko dama koy politique li def comme sénégalais yëpp ah bu football bi ñëwee ñëpp expert lañu politique bi ñëpp expert lañu boo ma géggee nag ci politique bu may wax da nga kii pënkalum politicien la <laughs> alors que vraiment hum, du woon mais mouvement de famille, il y a organisé y a y vraiment loolu du ça sama problème ba ma y a aussi que le aussi que le ni euh, politique là, bah sama politique depuis ak là, Nek euh, leader bu a mag sama papa aussi nek leader alors que dama famille qui a diriger ci environnement boobu dafay am xam nga environnement day wàlle alors am na luñ ma wàlloon loo xam ne mi ngi doon dund ci sama biir mais xëy na xaw ma ko woon voilà léegi nag euh, ñu ni ma taala si la daal benn cousine ni ma mais taala moo ko jox récépissé xaw ma sax lan mooy récépissé dayax ma ne ko mooy récépissé mooy lan ma moo ko abal kayitu parte ma ne ko ah man mën naa la indi taala kooku nag magam sama xarit la woon Abouba Jaxate yàlla na ko yàlla yërëm te yeexeñ dañu nuroo woon ñuy jaawale voilà mu indil ma taala ñu sayute ma daal ko ne boo amee xaalis ah, ma politigal la mu ni ma am naa cent man ko million walla mu ni ma franc <laughs> alors ñu waxtaan si biir waxtaan bi naan boisson waxtaan xëy na si biir waxtaan bi ni muy expliquer ni muy duggee intéressé na ko bu amee manifestation mu invité ma ba benn bis bi mu jógee ñu après tout suuf ñu tëj ko kaso moom ak ma Demba Soog bi mu génnee moom ak ma Demba Soog di def benn meeting Pikine invité ma ci meeting bi si biir meeting bi laa jaxe sa laa jëlee engagement politique ni ko dinaa la jàppale dinaa la jàppale ci saa dinaa la jàppale ci sama alal ba ci ñaar dërëm yu mujj ci sama contre et effectivement noonu la ñu àndee vraiment bi may dugg si si si politique bi yëkkuma ko comme joxe daal sama kàddu engagé naa ça y parce que moment bu ma fa joxe cadeau mo doy war dama fekk mom mu wax ba ba mitin mom mom doon mujje wax ba mitin bi wara tass muni bala kenn dem nañ ma may ma jox daf ma fe am gan guy do a yegg gan gu màgg nangam nangam xam nga politiciens yi am xam nu ñuy teyé nit alors que ñu jox ko mu ki mu jox ma radio bi ma joxe sama engagement le parti jeuf jeul amul won ay mouvement intégré parce que parti wu jeune la won dañ ni buñ défé jeune kan moy jeune bi voilà amul parce que nous dañu bëggoon indi leneen lu bees pourquoi ñuy ber femmes pourquoi nous nangam mais dañu dem ba ci bir xamni chaque pays am nañu réalité alors que nous avons dañu bëgg des femmes ñom ñu jël âge passé âge jeune. jeune yi ni ñom itam ñu bokk ak table il faut ñu am parce que nous li ñuy yëg ci manifestation hayna ci animé parti bi ak yoyu bokul ak makki jël jël âge ak am sagesse bokul ak alors que ñu daal ni kon nañ créer lool ñu def ay assemblée générale sur les 42 booba 42 départements la après ñu def congrès ñu ñu ñu intégré ci ci statut wu parti bi les mouvements intégrés alors que les mouvements des femme ñu def conseil national bi vraiment ñu dénk ma mouvement des femme de l'alliance Jëf Jël ñu ànd nag ànd bu rafet ma jël sama saag nag di dugg ci sept places yi di installé Jëf Jël si biir réew mi man maa nekkoon commissaire u Mbàkke man ak euh, ku ñuy wax Ablaye Diaw bu dëkkoon Thiès voilà euh, mais yow woon ci nekk commissaire u Mbàkke rek mais dama doon dem fépp si biir réew mi foo xam ne xamoon naa fa euh, kenn rek demoon naa fa fexe ba am fa bu dee benn nit sax xeebuma ko woon installé fa jëf jël loolu laa defoon parce que li ma permettre woon loolu mooy sam maam ak sam papa dañu amoon compagnie bu ñuy wax compagnie sénégalaise alors sur les quarante booba trente cinq départements alors sur les cinq départements du Sénégal amoon nañ fa boulangerie compagnie Sénégal ak magasin buy jaay ay tissus yu yomb saaru Sonadis yooyu la woon alors que amoon nañ fa kër goo xam ne aussi ku bokk ci famille boo fa demee da ngay am foo dal ma ba pare loolu nekkoon ba bi ba bi ñuy installé Jëf Jël ba léegi sax am na am na kër yi mi ngi fa boo fa demee da nga fay fay xale yi ña nga fa di liggéey installé seen ay four ba léegi boulangerie compagnie yi dafa continuer loolu moo ma permettre woon chaque département dama fa doon dem xeebu ma fa benn nit nag waaw benn nit xeebu ma ko fa benn nit képp bu ma ko fa amee mu dégg ma gëm ma d'accord naa ci ni man fii déjà jëf jël am na fi vraiment noonu laa àndeek si la mu ku baax nag waaw ku baax ku baax mais am ay gis-gis ci bopam ci ci politique man na damay wax ni politique pionnier wu Talla Sylla laa à part Talla ken jangaluma politique mais da il faut pour nga jang politique fo nga nungoo deglu fo nga nungoo topé voilà euh, foofu daal laa la ànd ak Talla Sylla ba 2000 euh, ba 2000 ñu ànd ak Moustapha Niass ci élection yi bi ñu àndee ak Moustapha Niass ci code 2000 euh yalla def ñu Il génn appelé au deuxième tour alors que voilà Niass day premier ministre mais est retourné Il moom du day sentinelle du du gouvernement et puis du opposition mais day un sentinelle de la démocratie alors que nous, nous ñu accepté parce que aussi boo un seul leader des fois muy jël des décisions, des fois décisions yi sax la arrangé mais da nga ko top parce que da nga ko war parce que moi, moo la information te na la muy xam ne booy jàng quand même foog nga nungu toppee et puis foog nga nungu dégg ndigal xëy na nag dégg ndigal gi li may nekk murit da ciy compter dañu nungu kilifteef ñun dañu nungu kilifteef voilà noonu lañu ñu àndee euh, président Talla 2001 ñu dem euh, législative Talla si la beru am benn député mais aussi allié ak euh, Moustapha Niass ñu jox ko vice-président assemblée nationale après moom mu démissionné voilà 2002 ñu dem Euh, local nous and ak Babacar Mbeng ak Mansour Tambetou le CPC bu jëk ba ñu am 11 conseillers ci la jëk nek 2000 2000 2002 voilà kon so xolé digënté 98 bi may engagé wu ci politique alors 99 2000 2000 2001 alors que 2002 ma nek conseiller kon man nga ni équivalent wu 5 ans wala 4 ans nek suis ci conseiller municipal ci sama engagement politique voilà alors nous sommes en 2007 2007 ma suis député parce que Talla le monde alors euh, ci mu démissionné man suis en ci mom ñu ma député voilà 2000 2009 euh, ñu date même équipe ñu àndaat jël dëkk bi ci Amadou Ba Amadou Dia voilà jiital Babacar ma nekk deuxième adjoint au maire Ali mbay bu PS moo nekkoon euh, premier adjoint voilà léegi nag euh, deux mille deux mille deux mille deux mille huit Macky am problème ak euh, partem muy PDS parce que Macky maa ngi moom ñoo nekkandoon assemblée en 2007 le 20 juin 2007 lañ l'assemblée, assemblée moom mu le primature de assemblée en tant que président l'Assemblée nationale mu suis PDS ma aussi voilà mais nous, ñu bu ñu nous, ci assemblée vraiment li ñuy ñor mooy intérêt population alors si nous koy eu biir PDS aussi ma taxaw ci ma parce que naturellement bëgguma l'injustice sama sama alors bi ko 2009 mu mu créé parti 2009 mu créé parti voilà alors ci la demee dekkal ngor euh, ci la ñu jëlee Fatou Diouf mu dugg si biir CPC bi voilà ak dekkal alors que ci tu l'as ñu jëlee mairie Anne Belen, air euh, deuxième adjoint au maire alors ñu continuer gays. 2012 nous eu am problème ak sama parti parce que 2012 pourquoi ma am problème ak sam parti fekk na booba vraiment ñun ñu nekk si Benno Siggil Sénégal nit ñi bëgguñu woon génn dañu bëggoon def benn bloc pour daaneel Ablaye Wade alors Talla génn ci bennoo bi te moom moo ñu dugal ci bennoo bi moom moo créé ci làmmiñam la bennoo bi ci juddoo alors moo créé bennoo bi ci saalu Ahmed Dansokho ba pare wëlbatiku bàyyi ko ak nit ñi alors que bijou bu mel noonu man du ma ko liggéey créé ko ba pare di ko bàyyi ak nit ñi foofu la suñu problème dikkee bi candidat yi tase alors euh, mu ànd ak Ibrahima Fall bu taxaw temm d'accord Ibrahima Fall sénégalais la jàmbaar la et tout sénégalais yi xëy na xam nañ ko mais ñun génération bu mujj bi vraiment dañu màgg rek dégg ñu naan Ibrahima Fall jàpp ñu ci moom lu vraiment lu ñu doy loo xamante ni war na ñu mën a ànd ak moom et puis booy ànd ak nit ki sax day fekk euh, nga ànd ak moom ndax ngëm-ngëm parce que man damay wax Ibrahima Fall defalu fi Sénégalais bi lu lu lu Macky Sall defalul Sénégal parce que moom dafa jàng ba pare Sénégal jox ko lépp wëlbatiku def communité de des affaires bi ñu daanoo dafa génn réew mi dem liggéeyi mais liggéey jox sa sa sa sa sa sa dundal sa famille benn benn benn amul ndam ah, amul ndam ah eh, eh, au contraire ki nga xamante ni bi ko Sénégal joxe lépp ba pare bi ñu ko dàqee mënoon na dem ak njabootam mais dafa toog resté opté resté ci biir réew mi pour liggéeya réew mi alors que ku ku am xew jàmm gis ko ku am xew naqar gis ko li mu yoro kus néew mu di ko bokk ak sénégalais yi mais man bu may jàppale kooku laay jàppale ki nga xamante ni dafa mag bon discussion yi entre en tout cas foofu la foofu la jóge ma man man ma opté jàppale président Macky Sall en 2012 moom parti bi and ak euh, Ibrahima Fall amna ci droit alors que xawoon na doy waar touti parce que bo bàyyee sa parti ci assemblée da nga wara perdre sa mandat mais xam nga nak mom mom ba fa fàtte won ni mom momu jangal politique dama créer A3J and jàppoo jëf ci jamm ñu def lancement bi alors que le mouvement and ak président Macky Sall pas pas militante musli Diakhaté di di jëf jël mais le mouvement A3J mo and ak euh, président Macky Sall 2012 vraiment ñu jël euh, ñu jël euh, ñu jël dëkk bi voilà alors que 2000 2000 2000 2012 nous dem législative mu dugal ma si aussi ma djal. voilà djal, 2013 euh, mu def ma secrétaire élu mais ci dis bi dafa am leneen lu de xew parce que de 2012 à 2013 alors que 2013 lañ ma un secrétaire élu mais de 2012 à 2014 dafa mel comme si a 3 g existait a 3 g c'est la si coalition Macky coalition Macky 2012 bi au premier tour le président Macky Sall comme si elle elle bon elle elle ne pèse rien du tout mais il faut que nous pèsions ñun suñu pour un la indi poids Pour la indi poids. parce que li ñu indee suñu poids mooy euh, de deux 2012 à 2014 deux ans rek la deux ans rek la xam nga Benno Bokk Yaakaar quatre-vingt presque quatre-vingt-trois pour cent la ñu gagné woon euh, deuxième tour Hann Bel-Air ci ci présidentielle yi alors que deux ans après nga chuté bu troisième position loolu dafa am benn benn benn jàngat politique bu fi war am parce que bi ñu demee. local 2014 man dama génn Benno Bokk Yaakaar mag Babacar Mbengue ak ak ak Matar Diaw alors que Ali Mbaye ak les autres bon yeneen euh, maires yi muy Ali Mbaye ak euh, ak Abbas ñoom ñoom ñu dem si Benno Bokk Yaakaar bi ak euh, Momar Gningue waaw ñoom itam ñu dem si Benno Bokk Yaakaar bi alors que ñun ñu génn ñun man moom ak Matar ñu génn vraiment si Benno bi parce que boo xool ñun ñëpp produit wu Benno bi lañu parce que Babacar AFP la Matar PS la alors que man A3J la si biir bennoo bi la ñu génn alors que dem jëli euh, récépissé wu Khalifa coalition bi coalition taxawu Ndakaaru ci lañ bannière boobu la ñu demee élection locale vola daal di gañewaat dëkk bi ma dellusiwaat jëlaat sama position muy ñetteelu mandat kon si Hann Bel-Air nekk sama ñetteelu mandat aussi ci ci ci ci assemblée sama ñaareelu mandat ci assemblée mais sama ñetteelu mandat ci ci ci ci ci kii bi ci nu mu tuddati ci Hann Bel-Air voilà bari na na